bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina wa maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam asalaamu wa rahmatullah mbokk jullit yi mbokku téléspectateurs yi seetaan seen chaîne bi di solution tv ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara di nuyu alxaaji Sanjogu Mbeng di nuyu sëriñ Chouaïbou Diop di nuyu sëriñ Xasan Mesere di nuy sëriñ Fàllu mii nu nekkal ci xarala gi mbokk yi di dellu si ak yéen rek ci suñu njeexantalu koor nag ndeysaan loo ne woon weer lañu jëm tey nga toog naan ñi ngi ci bés bu mujj mbokk yi xam ngeen ne am nañu ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bis ni tey ñi ngi nii di séentu weer wi incha allahu taala su yàlla defee mu feeñ subaak jàmm julli lay doon su yàlla defee feeñu lit bu subaa nu mottali fan weer door a julli ca samedi ja mais bu yàlla defee mu feeñ nii ci kanam incha allah dañuy daal di jeexal lépp bu subaak jàmm ci àjjuma ji nekk ñu daal di julli julli iid gi su fekkee feeñul nag ah ñu yeggale vendredi 30 bët set di samedi nekk euh, euh, bésu korite bi moo tax tey ju loolu lañu ñu war a waxtaane sax muy salaatul iid wala salaatul idayni bopp bu ne idayni nag dama boole korité ak tabaski lan mooy julli korité lan mooy julli tabaski ñaari julli lañ yoo xam ne du ñu farata nag mais sunna la waaw julli korité julli tabaski sunna waajib la maanaam sunna bu war la sunna bu war la sunna bu dëgër la sunna bu ñu farataal la ci ñun ñun njabootu yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunna boobu nag bu dee ci jamonoy woor bu ñu wooree ba am ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ëllëg sa bu dee weer yu feeñ ni ci guddi gi ci lañuy dem taxaw julli julli googu def ko ci bés bi mu nekk ak feet gu rëy goo xam ne sunu boroom moo ciy tatagal ak di ci dalal jaamam ñi mu santoon ñu xiifal ko maral ko wattul ko lépp lu muy tere diiru fanweeri ma diiru fanweeri fan sunu boroom di leen resevoir pour teral leen tappal leen ay grade ni ngay yore sa équipe nationale ñu dem compétition yi football yi gagné ba jël coupe bi match bi jeex ñu monter tribune bi di woo footballeur yi ñuy ñëw ñu di leen solal ay médailles ay médaille d'or médaille d'argent médaille bronze yu nekk ñu di leen ko solal pour di leen jaajëfal ci liggéey bu rëy bi ñu defal seen askan ci football ba nu defi woon noonu ñu leen di tappalee grade yi di leen solal ay euh, xamatuma sax nu mu tudd di leen solal ay euh, waaw li ñuy sol daal ñëpp xam nañ ko du grade mais médaille médaille waaw kay bàyyi <laughs> mbaa du koor gi la di leen solal ay médailles médailles yooyu nag bu dee ci ñun jullit bu weeru koor jeexee mooy médaille yu ragal yàlla lanu yàlla digoon ci la laallakum tattaquun keroog la ñuy solal ñi doon wóor yëpp ay médailles ku ñëw rekk sëgg ñu ràngal la ku ñëw sëgg nga ràngal la ku ñëw sëgg ñu ràngal la ndeysaan waaye di ko def ba fa soob yàlla bés boobu yonent sallallahu alayhi wasallam nee na sunu boroom ci boppam dafay akolaatanteeg jullit yi loolu nag yàlla xam nan la koy defee loolu kenn mënu ko misaal na yàlla di ñuuxoo ci ay jaamam ni yàlla di defee ay tajaliyaat mooy ay manifestation divine na ko yàlla di defee ci jaam ñi jaxasoog ñoom kooku yàlla rek moo ko xam waaye dig nañu ko ngir bégal ñu ngir kontaan looñu ci liggéey bu rëy bi ñu ko defal mooy ñu wooral ko fanweeri fan loolu moo waral julli iid gi mooy li ñu yàlla war a ndokkale yoor yoor lañ koy def yoor yoor maanaam ginnaaw bu ñu jullee suba ba jant bi génn heure boobu lay tàmbali julli it kenn mënu ko def avant jant bi di génn julli it kenn du ko def avant jant bi di génn par force dañuy xaar ba jant bi génn ba yëkkati ko ab diir minimum bu ne lever de soleil maanaam jant bi génn na minimum dana am ñaar fukki minutes ñu door a taxawal julli it léegi nag mu des ñi bëgg julli ñoom ndax dañ koy date huit dañ koy date neuf dañ koy date dix heures loolu ci ñoom la des mais na nekk après jant bu génn rek mooy yoor yoor lay door incha allahu taala buñ ko mënee defee ci bayal ab ndànd fay-fay bu yaatu boo xam ne dëkk ba yëpp danañ fa mën a daje góor ak jigéen ak mag ak ndaw ak ñépp nañu daje ci bayal ba mu gën a yaatu moo gën bu dee julli juróom yi dem leen ca jàkka ja mooy farata looloo gënal yàlla su dee julli iid nag bu ngeen amee bayal yu yaatu yoo xam ne mën na recevoir dëkk bi na ñëpp dem daje ji foofa ñu ub jàkka yi dem ca bayaal ba su dee fu mel ni ndakaaru nga xam ne bayaal yu mel noonu yomb fi nag ah ñu jël la am te mooy ñu ut jàkka yu yaatoo fu ñu mën a jullee rek waaw ndax Dakar yi léegi-léeg bayaal yu mel noonu ñi war a julli ñëpp amuñ ci lu doy waaw ba defee yooyooy tax waaye lee sunna la ca rek tekkiwul ne ku ko julleewul ci bayaal doo am julli déedéet loolu sopp nañ ko ci rek nag yoor-yoor lay doon dangay génn boo xëyee li ñuy njëkk a sopp ci yow bésu tabas bésu korité bii mooy na nga lekk dara mbaa nga naan dara ginnaaw salaatu na nga lekk dara wala nga naan dara doog a dem julli ci loolu sunna la ci dañuy bañ ki woor fanweeri fan yeewu continuer diggante salaatu ba muy julli ji lekkul dara mu mel ni dafa continuer di woor dañu bëgg même bu doon benn tàndaram même bu doon guuxu ndox ba yegg ci lekk bu suur yaa xam waaye fexeel nga lekk dara diggante salaatu ba julli na nga fi lekk dara luy firndeel ne wooroo ndax bés boobu dafa xaram ku ko woor xaram ko woor bëgg nañ itam nga ut ci yére bu bees boo mënee am yére bu bees moo gën nga ut yére bu bees soo mënul am yére bu bees nga jël yére ba nga amoon nga footaat ko ba mu set ñu gomeel la ko paaseel la ko ba mu rafet nga sol ko ndax bés bi dañoo bëgg sañse ci bés bi leen ci bëgg sañse loo doyadal doyadal àddina bésu it solal yére bu rafet boo mënee am yére bu bees moo gën soo amul bu bees nga defar ba nga amoon beneen bi ci des mooy na nga sangu-sangu sunna maanaam bon sangu farata lañ koy tuddee mais bés boobu sunna lay doon ci yow bés boobu sunna lay doon ci yow nga sangu-sangu boo xam ne ni ngay niñ lay waxee boo amee janaa ba ni ngay sangoo sangu farata noonu ngay sangoo bala ngaa dem ci jullikaay ba bëgg nañu itam bala nga koo def nga lelli say we nga dagg sa we yi nga dagg sa wewu loxo yi ak wewu tànk yépp nga lelli ko ba mu set bëgg nañu itam nga watu nga wat sa karaw yi watal bopp bi watal mustaas yi defar ko ba mu jekk waaw boo amee sikkim defaral ba mu jekk bu dee doo wat nga taay ba mu rafet mel ni sikki mu sëriñ Chouaïb bu Jóob bi tabarkaal waaw ci jekk sikkim yi la bokk nga defar ba mu jekk soo amul sikkimit ah nga defar la nga ca am rek ba mu jekk tabaarakallah kii watit buy wat ah na ca bàyyee dara rek <laughs> waaw booy wat sikkimit nga bàyyee ca dara tuuti rek luy màndargaal karaw yooyu ngir nu royee ko yeneen sallallahu sallam c'est pas forcé que ñëpp am ci bu rëy rëy du farata ci jullit waaye sunna la nag nga am ca dara bàyyi ca rek même bu doon tuuti moo tax ngay gis mag ñi sàmm bu ñu daan wat sikkim it dañuy wat ba ci yàgg ñu bàyyi fii dara ndeysaan mhm. nee na itam bokk na ca sooy génn sa kër na nga tudd yàlla allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila loolu ngay wax ba baa ngay yegg ci jullikaay ba soo yeggee ci jullikaay ba bul noppi de da ngay continuer di ko wax ba baa imam di ñëw ndax da koy wax ci kaw wala da nga koy wax ci suuf loolu ci yow la dépendre su la neexee nga wax ko ci kaw su la neexee nga wax ko ci suuf allahu akbar kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila su la neexee nga tëggee ko beneen façon naan lan allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar walilahi alhamdu allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar walilahi alhamdu su la neexee loolu ngay zikkar jógee sa kër ba ci jullikaay ba soo yeggee ci jullikaay ba bul julli ñaari ràkk da nga yegg rek toog bu dee du jàkka bu dee du jumaa ci bayal lañ koy def boo ñëwee doo julli ñaari rakk da ngay ñëw toog xaar imam jour boobu imam mooy ubbi naafi la journée bi loolu la l'islam bëgg mooy bu dee ci bayal la ñuy jullee ku ñëw bul julli da ngay ñëw rek toog ñu xaar ba imam ñëw ñu ubbi naafi la journée bi su imam jullee ba pare nag léegi après li des ci journée bi ku bëgg naafi la nga naafi la mais bu dee ci jàkk nga dugg nag ah heure boobu dafa daggana naafi la moom soo ñëwee da ngay def ñaari rakka nga toog soo defee ñaari ràkk toog su continuer sa zikkar continuer say zikkar ndax allahu akbar kabira nga koy zikkare ndax allahu akbar allahu akbar nga koy zikkare yaa xam waaye dee ko zikkar ba imaam ñëw nga arrêté su imaam xasee ñëw nag moom tamit du fa taxaw di julli ñaar ràkk day ñëw rek ñu ne bismillah imaam ñëw na imaam avancé dem ci kanam jiite nit ñi ñaari rakk yoo xam ne rakk bu njëkk bi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 waaye bi ngay jógee ci sujjóot bi bi ngay jóg naan allahu akbar di jóg boobu daf ciy bokkaale boobu ngay limaale mooy nekk juróom-benneel su boobaa boobu ngay limaale mooy doon sa juróom-benneel kon booy siggi ci sujjóot di jóg taxaw sa deuxième rakka allahu akbar boobu ngay wax benn la nga tegaat ci yeneen juróom muy juróom-benni kàbbar loolu imam bi da koy def maamum yi da koy def kàbbar yi nag mën nga ne tekk ab diir doo ko kàbbaraat beneen kàbbar ñaari rakka yi itam ah, boo ca jàngee sa bisma rabbika comme niñ daan wax ne noonu lañ ko soppee ak euh, wa shamsi wa baax na soo ko ciy jàngulit saar woo ca jàng baax na waaw saar woo ci jàng baax na mais daal bare na lu luñ ciy jàng sa bisma rabbika wala wa shamsi wa duhaaha léeg nga gis al xataaka xadiisul xaashiya ak yeneeni saar mais saar woo mën rek moo gën a jàppandi te loolu ki am ngànt ba mënul dem ca mbooloo ma xëy na ma nga Europe xëy na ma nga Amérique xëy na ma nga Asie waaye jullit la bëgg na feete feet gi te amul mbokk yu mu ko defandool fa mu nekk moom ma fa nekk bu yoor yoor jotee moom na jóg taxaw mu julli julli gi nii mu def ñaari rakk yoo xam ne Fatiha ak saar bu ko neex lay tari waaye su kàbbaree premier kàbbar bi na ci tegaat juróom benni kàbbar door a jàng Fatiha jàng saar rukon siggi sujjóot siggi jógaat taxaw boobu muy jóg ne allahu akbar na ci tegaat yeneen juróomi kàbbar muy juróom benn mu doog jàngaat Fatiha jàng saar rukkon siggi sujjóot siggi toog taaye sëlmal maanaam ñaari sujjóot laa bëgg wax toog taaye sëlmal moom def na ñaari ràkk sunnaam yi acca nag léegi nag wàcc na ko jeex na leneen lu ci des ci journée bi lu mën ci lu baax mu def ko ku mën a dimbali ku mën a sarax balonte àq ak say mbokki jullit yooyu mooy yi nga xam ne moo war ci bés bi imam nag bu ca jógee rek bu sëlmalee rek day walbatiku yéeg ci kaw minbar bi jàkkaarlook jullit yi def benn xutba xutba boo xam ne bu mënee synthèse bu mënee def synthèse xew-xew yi mu def ko résumé taxawaayu jullit yi ci li xew ci àddina bi taxawaayu jullit yi li xew ci réew mi fàttali pas-pas yi delloo si nit ñi ci jaamu yàlla wax leen lépp lu leen mën a jë wala lépp lu mu xam ci lu mu leen mën a jëriñ ci diine lañ leen di tere ñu dindi leen ca discours boobu tamit jaadu na ci imam mu téye ko mu nekk discours bu sérieux mu jottali ko jullit yi ci bésu feet boobu le ñoom it kenn ku nekk mën a am loo yóbbaale sa kër bu nuy ñibbi itam sopp nañu ku nekk mbedd bii nga jaaroon dem sooy wàññeeku nga jaar mbedd bee dellu si sanq bi may dem dama jaar nii dem jàkka ja su may ñëw damay jaaree nii ma ñibbi si loolu politique ul islaam la ku ko deful tamit dara du la ci fekk mais bu njëkk salaahu salaam daan na ko digal julli yi ñu di ko def boobu ñu ngi nekk lim bu néew bu ñu daan dem di jullit yi yéefar yi di leen kar di leen ree di leen compter noonu xool leen xool leen xool leen ñu ngi nii kat la cinq personnes leen compter ci mbedd yi <laughs> ndeysaan léegi-léegi am cinq yu jaar nii ñu compter leen fekk am na cinq yu jël mbedd bale ñu war a dajee ñu conte leen ñi jaaroon fii waññeeku jaar fale ñee compter woon ñee compter waat leen ne ah fii dix jaar na fi cinq yi jaaroon fii ñoo ñëw jaaraat fii ñu conte waat leen ni fii tamit dix jaar na fi ah gaa yaa ngi yokku de daa mel ni yegg yegg na ñaar fukk de fekk lim ya nga compté woon ngay compté waat loolu politique wu l'islam la ci sa adversaire loo xam ne boo ko defee mën nga ko déstabiliser loolu l'islam bañu ko parce que alxar bu xuda waaw guerre moom stratégie la te l'islam foofu la tolloon mooy dafa nekkoon ak ñoo xam ne ñu ngi koy xeex bu tegul ay stratégie yu mën a amee fu mu sukkandiku ba liggéey du ko def mais yooyu yëpp daal bokk na ci yi nga xam ne ku ko mën a def ci bés bi nga def ko ah euh, yeneen yi ci des mooy boo ñibbisee ñu soppi kër gi ñu soppi añ bi waaw soppi añ bi c'est pas forcé que ndawal la war a doon voilà ñun nag ñoo taamu tabaski wala korité soos lay doon bon ça dépend na nekk daal añ boo xam ne rek añ la bu bu añaabul daal <laughs> añ bu añaabul la loo xam ne daal nit bu ko toogee dana yëg ne tey mi ngi añ añ bu neex waaw ah, kenn terewul a ceebu jën waaw ah, kenn tegewul a maafe kenn tegewul a yaasa waaw ah, kenn terewul a sax ñalañ l'essentiel añ bi rek moo ci am solo ni sa poos sol fii nag moom aada bi mooy ndawal la war a doon Ah, ndawal la war a doon ku ko yàlla mën loo nga def ko incha allah kon Serigne Chouaïbou li ñu amoon ci ay simili jeex na ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.